participation était assez parce que en 88 à la présidentielle le taux de participation de 58 pour cent on avait eu aux législatives un taux de participation de près de 57 pour cent en 93 aussi où les élections euh, présidentielles et législatives avaient été couplées on avait eu sensiblement la pour cent de taux de participation euh, pour la présidentielle et euh, 56 pour cent pour euh, les législatives on peut quoi on peut en déduire quand même que euh, il y dans, dans le vote au cas, dans les cas où on a eu euh, en, euh, de, de, de, gagner du temps, ce qui permet de ne pas disperser le, les électeurs à l'autre. Et là, un vote assez homogène, parce que 56-57%, c'est un vote assez on a les, les, les rares euh, la présidentielle et les législatives ont il y a eu quand même un taux de participation très très conséquent. Mm -hmm. ce, qui, ce qui veut dire quoi Je pense, et c'est l'avis de beaucoup d'analystes, qu'il faudrait peut-être pour booster le taux de participation, Coupler songer à, à, coupler pour gagner en temps et pour que la fièvre ne retombe pas, mm -hmm. comme euh, ce qui risque de se passer malheureusement euh, aujourd'hui. Okay, voilà, nous allons, euh, je ne sais pas, Castor, euh, Nafisatou, Yangi Castor, euh, Nafisatou Manglé Euh, maa ngi lay fay Cheikh Tidiane Diaw di la wax rek euh, que instant bi nekk guma Castor maa ngi fii ci euh, foyer bu Grand Yoff foofu nag mu di impor mu di centre de vote bu am solo ndax foofu ci commune de commune d' arrondissement bu Grand Yoff centre de vote boobu moo fa gën a rëy ndax li mu am lu tollook dix huit bureaux de vote Euh, Cheikh Tidiane Diaw foofu nag euh, gisuñu fa benn difficulté bu mag a mag jamono ji xanaa keñ euh, absence su ñaari secrétaire ci ay bureau de vote ñoo xamante ne ci saa si lañ leen remplacer ci votant yi nag ñoom tamit amul affluence wu mag mën nañu wax ni jamono ji kenn nekk gu fa mais dañu xëye ba tey nag ñoom nag li ñu nemmeeku mooy dafa war ñu ñëw voté wu ñu ñoom ñoom ñoom ñëpp ñu ñëw déplacé wu parce que vote bi dafay nekk loo xamante ne ñoom ci la ñuy tàbb ñi nga xamante ne ñoo leen di représenté ndaw yi nga xamante ne ñoo leen di représenté ci euh, assemblée nationale. te centre de vote euh, bu Grand Yoff bi nag euh, moom nag ñu fa jotee nemmeeku tamit bokk na ci ci ay bureau de vote yoo xamante ne dañaa xat loolu yenn ñi nag boo xoolee sax da ngay yaakaar ni ay néeg sax ak a gën a yaatu votant yi duñu am sax ñu jàll il faut que kenn dugg may moromam. Euh, ñu nemmeeku tamit euh, ci côté électeurs yi ñoom tamit nee nañu euh, vote bi xaw na yéex loolu li ko waral nag mooy bulletin de vote yi nga xamante ne dañuy jël dafa xaw a bari maanaam ñu ngi toll ci vingt quatre bulletin de vote loolu nag mooy xaw a gën a yéexal vote bi foofu noonu ci centre bu foyer bu Grand Yoff Voilà, Nafissatou, euh, vous pouvez venir en français. Donc, vous êtes actuellement à Grand Yoff. Pouvez-vous mm -hmm. nous dire comment ça se passe le vote? Est-ce que Euh, bonjour, euh, cher Tidiane Diao. Euh, on peut dire qu'à Grand Yoff, euh, au centre euh, du foyer de Grand Yoff, qui est un important centre de vote, car euh, il comporte presque 20 de vote, c'est-à-dire 18 de vote. Et là-bas, tout se passe bien, le vote se déroule normalement, à part quelques difficultés majeures. en fait pas de difficultés majeures, mis à part l'absence de secrétaires de bureau de vote qui ont été immédiatement remplacés. Et du côté des votants, il n'y a pas une grande affluence. Ça, on peut, on peut le souligner. Mais pour ceux qui sont venus voter, ils ont jugé impératif euh, le fait de se déplacer car il s'agit euh, de voter, de trouver les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Aussi, au centre euh, du foyer de Grand Yoff, euh, on a trouvé que certains bureaux de vote étaient très étroits. Euh, pour certains bureaux même, on aurait dit euh, euh, qu'ils avaient euh, une chambre. et pour le vote, pour que le vote se déroule normalement, il faut qu'un votant entre et puis l'autre l'attendent euh, dehors. Euh, à part cela aussi, euh, certains électeurs ont trouvé que le vote était très lent parce que les bulletins étaient trop nombreux, c'est-à-dire au total il y avait 24 bulletins, donc c'est ce qui ralentit un peu le vote là-bas. Chatigan Tiao. C'était tout euh, pour euh, la commune d'arrondissement de Grand Yoff, pour le centre de vote euh, du foyer. Voilà, on vous attend. J'espère que votre prochaine étape, ce sera à Castor, euh, Nafisatou, voilà. Silla. Alors, Barca, tout à l'heure, on a été coupé euh, concernant la question sur euh, euh l'engouement. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de voir euh, ces, ces, ces, ces taux faibles quand il s'agit d'élections législatives Oui, je disais que c'est une équation complexe qui appelle beaucoup de réponses. Et euh, je pense qu'on peut poursuivre l'argumentaire en voyant aussi, en, euh, en, regardant de très près le rapport que les Sénégalais ont en général avec leurs représentants, les députés. À quelques rares exceptions près, les députés ne sont pas très très bien vu euh, des populations qui les considèrent souvent comme, comme des dormeurs. Il y a cette expression qui revient, comme des applaudisseurs euh, professionnels, comme des gens totalement infodés au pouvoir exécutif. Et si on prend en compte quelques épisodes tristes de notre démocratie, comme la loi Aisan, comme l'amendement Nyadjarsen, l'amendement Moussassi, souvent les députés, quand ils se sont manifestés, c'est de la manière négative. Euh, ils ont donné une euh, piètre image euh, d'eux-mêmes et de ce que doit être une représentation parlementaire. je pense que euh, l'idée que les populations se font des députés, du, du, monsieur qui a une voiture avec des litres d'essence, euh, qui vient raconter parfois des sornettes le temps d'une campagne et après qui devient inaccessible aux populations, je caricature un peu parce qu'il y a des parlementaires de, de qualité, l'histoire politique du pays en, en, regorge, il y a des députés qui ont bien joué leur rôle, qui continuent de le jouer sur, sur toutes les législatures, il y a eu des, des, des parlementaires de, de qualité réalités, on ne peut pas tous les, les citer. Mais malheureusement, hélas, ce qui euh, surnage au, au finish, c'est que euh, pour la plupart des Sénégalais, pour l'écrasante majorité, les députés ne les représentent pas ou représentent eux-mêmes. Alors, si on, euh, les, les, les populations ont une vision aussi négative ou parfois même aussi caricaturale et peut-être même injuste du parlementaire, ça ne plaide pas en faveur des députés euh, qu'il y ait un taux de participation assez, assez élevé. Voilà, merci Barca. Direction les parcelles d'Asseni euh, pour y retrouver Fatima Ba. Alors Fatima, euh, ñu tàmbalee ci wolof est-ce que askanu parcelles Asseni Fatima Ba génne nañu wote ji Cheikh Tidiane maa ngi lay jaajëfal balaa ma lay wax rek ci askanu Parcelles Assainies dama lay wax ne fële ci Cambérène la ñu njëkkee ca centre de vote bu Seydina Issa Laye boobu xam nga ni mooy centre de vote bi gën a rëy ci village yu Cambérène ndax kat moom boole na lu toll ci fukk ak juróom-ñett bureau de vote foofu nag li ñu fa nemmeeku rek mooy nit ñi ñëwuñu centre bu wéet na lool par rapport ak présidentielle bi nga xamante ne man maa ngi fa woon gis naa nit ñi fa nekkoon tey moom wéet na trop amul amul nit ñu bëri la da ngay ñëw rek doo sax ran da ngay ñëw da ngay ñëw dugg après voté rek après ñibbi sa kër amul de amul amul amul dara daal. léegi ba tax na rek sax quelques électeurs yi ñu fa fekk ñoom jàpp nañ ne boo gisee li ni mel mooy ne popu euh, kii euh, population bi amatuñu confiance ci politiciens yi ñuy élire di leen yóbbu assemblée nationale ndax jàpp nañ ni ñooñu seen bopp rek lañ fay nekkal maanaam du ñu jéem dara daal pour pour pour population bi loolu moo tax daal ñu bëri. ñu bëri ñëwuñu euh, waaye tam teewul na ba tey ñoom jàpp nañ ñun ñi war nañ génn ñëw voté accomplir seen devoir civique ngir rek tànn ñin ñi ñi baax ñi pour assemblée nationale ñi nga xamante ni dañ fay teewal askan bi bi ñu fa jóg bi ñu fa jógee nag dem nañu fi nga xamante ne mooy centre socioculturel bu Parcelles Assainies boobu tam mooy centre de vote bu gën a mag ci parcelle parce que am na six bureau de vote euh, mais fii moom jàpp ne am na ay nit moom fii noonu macha nit ñaa ngi fii nit ñaa ngi rang ñiy voté ñu ngi nii di ñibbi euh, mais benn constat bi ñu def euh, ca centre Seydina Issa Laye ak fii ci centre socioculturel bu Parcelles mooy que ni vote bi moom yéex na commencé yéex na ñii parce que jotuñu seen i matériel ci bi mu waree ñii parce que personnel bi ñëwuñu à l'heure ñii parce que tout simplement euh, seen bureau de vote dañu fekk ñu tëj leen wala ñii mënuñu woon commencé parce que président bureau de vote bi nekku fa woon mais léegi nii daal lépp calme la lépp ñu jàll fii ci centre socioculturel bu Parcelles Assainies. alors Fatima Fatima. oui Cheikh bon, euh, pas imposer mon poulard euh, <laughs> aux je vais laisser le soin à Barka de le faire. <laughs> Fatimata no mbaɗɗa. no mbaɗɗa Barka. aɗa wawi humpidde min ko kewi toon to joni to oto euh, kalɗo men maɗo min goni koye centre euh, socio culturel mo parcelle asseni kono avant amin gara ɗo tan min min gadori koto centre euh, seydina issa lay mo camberen fo toon noon eɗen mbawi jaggude woni centre de vote ɓurɗo mawnude e nder camberen par que centre de vote oɗon waɗi sappo e jeetati bureau de vote joni noon kono komin ƴewtidi toon dal mo yimɓeɓe garani vodde ɓe garani haydara yimɓeɓe arɓe toon ɓene famdi a arat tan vota koota électeur uji momin tawi toon ɓe ɓe gandani min wonde sa yimɓe ɓe garani ko joni ɓe natti hoolade député ji ƴetteteɓe e, ɓenawe assemblée nationale par ce que ɓe mbi ɓen so goni toon ko koye men jooɗon to toon jooɗon euh, population ɗum waɗi dal kamɓe gara conférence e, e maɓɓe kono dal e, kamɓe fof eɓe nganndi wonde il faut ɓe ngara vote il faut ɓe ngara vote pour ɓe cuɓoɓe ɓe ngannduɗa ɓe kamɓe jooɗotto o to to assemblé national nde min ngummi toon to centre seydina issa mo camberen min ngari ɗo to centre socio culturel mo parcelle aseni ɗo tam centre de vote ɓurɗo mawnude parcelle par mi waɗi bureau de vote uji jeegom ɗone kam euh, ko euh, haalde gonga yimɓeɓe ngari ɗo comme centre seydina issa lay ɗo yimɓeɓe ngari fodde ɓe ngari machallah eɓene jooɗi ɓenana voddana goto ɓenana rangina paaɗi paaɗi turuji mumen kono dal komin ƴewtidi toon e parcelle asani e wonde to seydina issa lay moyne kane vote o leeli fuɗɗade leeli fuɗɗade bureau de vote uji kewɗi ɓe mbi par ce que ɓe keɓano matériel mabɓe à temps ɓe mbi par que personnel o ara arani ko wayno président bureau de vote en eko way noon e, sahna dal ha vote o leeli fuɗɗade kono to woni ɗo moom machallah foof ne rewe lawol yimɓe nan gara no vote no goota Fatima, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé en français, s'il vous plaît euh, Barca, comme je vous le disais tout, tout de suite en Poulard, nous étions au centre de vote Seydina Issalay. C'est le plus grand centre de vote du village de Cambérine parce qu'il regroupe 18 bureaux de vote. Le constat fait dans ce centre de vote, c'est le faible taux de participation. Les gens viennent un à un Il n'y a même pas de queue devant, le bureau de vote. Vous venez, vous votez et puis vous rentrez chez vous. Mais les quelques électeurs trouvés sur place justifient cette situation par le simple fait que les Sénégalais n'ont plus confiance à ces politiciens, à ces députés qu'on élise euh, pour, les amener à l'Assemblée nationale pour qu'une fois là-bas, ils, soient là pour leur propre compte. Donc les Sénégalais n'ont plus confiance à ces, politiciens et élire l'emphase qu'il faut au peuple à l'Assemblée nationale. Mais contrairement au centre de vote Seydina Isala, ici au centre euh, socio-culturel des parcelles assainies d'où nous nous trouvons actuellement, euh, il est rempli de monde ce centre. Et puis c'est le plus grand centre des parcelles assainies puisqu'il regroupe aussi six bureaux de vote. Et ici quand même, euh, il y a un engouement, les gens sont là, ils, ils attendent, euh, ils attendent leur tour pour, pour entrer dans les bureaux de vote, voter et rentrer chez eux. euh, ils sont là assis devant, euh, assis ou devant leur bureau de vote en attendant euh, patiemment leur, leur, leur, tour pour aller voter. Ah bah, merci. Euh, donc, euh, vous l'avez entendu, c'est général. le taux de participation est très faible pour le moment et ce sont les militaires qui avaient donné le ton. Il y a une semaine de cela. Est-ce que cela va se reproduire Élément de réponse dans ce sujet signé Fatou Kinedem. moins 15%, le taux de participation des militaires et paramilitaires aux législatives est jugé faible. Ceci n'est pas un fait nouveau, selon ce politologue. Cette tendance euh, euh, de désaffection des militaires au vote législatif existe depuis 2007. Vous savez très bien qu'en 2007, euh, le taux de participation des militaires aux élections présidentielles était relativement important, au point de susciter une certaine suspicion dans l'opposition. Et aux élections législatives, euh, il y avait un affaissement de la participation militaire.